بسم الإله ينمو لحائي بلا مناحي ولا انتحائي بسم الإله ينمو لحائي بلا مناحي ولا انتحائي حمدا لربي غير مربي قد رم قلبي بالاقتدائي له شكوري بلا كفوري وهو نصيري من فدائي لأقترابي بلا اغترابي لحو خطابي مع اعتدائي لك رضائي لك ثنائي لك التجائي مع اجتدائي يا من صفاني يا من حماني فمن جفاني بمقودائي أصبل سطوري أصلح أموري كسر قيوري بلا dañu ubbi fii ni benn restaurant La Sainte ci corniche Serigne Modou Bousso Dieng lépp am na fi ba pare liggéey bi tamit set na te sell lekk bi tamit neex na vraiment ñu leen bëgg nañ leen a présenter ay plat yoo xamante ni tamit plat abordable lay doon yu neex te sell plat yu ngeen bëgg nag am na ay pizza. restaurant lay da cee am restaurant dafay am li tàmbalee ci ceeb maafe mbaxal plat Sénégal yëpp dañ ko fas yéene nañ ko fee def te daan ko ci def ay mbaxalu Saalum ak yéen ma gën a xam suñu mbokki Saalum Saalum yi loolu lépp préparé nañ ko pour def ko fi. waaw te xam naa ne yooyu waa waaw ba ci ndékkit dañ ko ciy def ay sandwich yu am solo ay omelette ak meew ak yooyu yëpp dañ ko fiy def. programme nañ ko fi. dëkk bi ñu dëkk rek dafay wote la seen Touba kon bu ñu jëlee bërëb bi tuddee ko ko dafay nekk loo xamante ni aussi dafay abordable dafay nekk lu neex daal vraiment. waaw lekk gu sell lañ fiy jaay lekk bu sell bu yiw tamit lekk boo xamante ni en plus dina neex dina sell di ngeen ci kontaan daal incha allah. huit heures ba minuit la ñuy liggéey huit heures ba minuit dañuy jaay añ. même ndékki tamit dafay disponible ak añ bi ak bi tamit lépp lu ngeen bëgg am na fi même ay affaire de transfert d'argent lépp am na fi daal incha allah di ngeen kontaan bi ñëwee. ay ndog yu baax même jus ay fruits lépp lu ngeen bëgg am na fi jus yu neex jus naturel yu neex tamit lépp am na fi. fas yéene liggéey liggéey bu set bu sell bu yiw bu koop xam ne ku fi ñëw incha allah boo ñamee li ñu defar di nga bëgg a dellu siwaat fépp foo nekk. di nga fi dellu si waat incha allah. képp koo xamante ni woo nga ñu ci minute yu yàggul dara soobi sëñ Tuubaa su fekkee ci dëkk bi nga ne ndax su fekkee dañ ciy liggéey fexe nañ ba nga xamante ni wut nañ ci ay ndaw yoo xamante ni ci biir dëkk bi ci lañ juddoo fi lañ yaroo te miin nañ dëkk bi fépp foo ñu wax soo ñu wooyee rek soobe yàlla danañ la ko yóbbul te doo ci am benn problème waaw loolu it fas yéene nañ ko yéenee def te daa liggéey bi daa am loo xamante ni dañ koo fas yéene ànd ci liggéey bi. mooy liggéey bi nga xamante ni dem nañ ba nga xamante ni ubbi nañ fast food bi tëbuñu tëb rek xool ay nit rek jël leen ñi nga xamante ni ñooy liggéey ci fast food bi dañ leen a xool ay nit ñoo xamante ni ñu qualifié lan ci seenub liggéey ñu saytu leen ba ba seenub liggéey doy ñu ñu jël leen ñaar dafa am ci togg ñor neex ñor neex avant tout marque bi da cee bokk ñor neex xam nga ak lekk mën naa ñor te du neex ak lekk mën naa saf te du ñor waaye daa danoo boole mu ëmb lépp ñor neex ñor neex sécurité bu doy am na fi waaw loolu moom am na fi baax a baax a baax ku ñu bëgg a jot am nañ ci numéro yoo xamante ni saa ñu bëggee jot immédiatement su la neexee nga toog sa kër pour woote bala ngaa yegg si ñu defaral la sa plat li nga bëgg am da ngay dikk rek ñu taajal la 33 928 13 13 numéro boobu képp ku ci ku ci woote da jot gérant bi bala ngaa ñëw daan la defalal li nga bëgg a def lépp soobi suñ tuwaa nga da ngay dikk rek def yëfi sàmbeen waaw soobe yàlla bada widyayi bidil xorobi jalil korobi nuril aribi maxirriyayi ذاك المنير ذاك البشير لا أسير la mu saf daal ka ko mbàcce ko xam te doonoo bëgg ñu ñëw xool ragal féete nag day xañe wërsëg du question li